Ah, ñaar pour cent la am ah. <laughs> d'accord euh, waaw kii je pense que laaj boobu noonu nga xam ni journal bi laaj na ko. Mhm. Euh, laaj bu am solo la. Euh, xam nga soutien <coughs> man pour dire vrai quoi yenn soutien yi sax gëwuma ko yenn soutien yi. gëwuma ko parce que pour man waroon na am bu yàgg ba ngay jël position di dem présidentielle nga am foo jóge woon ñun li ñu gis mooy que bëgg nga am benn statut politique boo créé mm-hmm. mm-hmm. bëgg nga am benn taxawaay ci seen politique bi jàngat boobu rek lañuy am nga dem élection wala boog ngay dem élection présidentielle nga xam xel ne doo gagné mais nga xam xel ne waxuma la doo gagné mais bokkoo ci favori nga nekkoon ci benn régime nag cautionné lépp nga nekk comptable du régime ñu dem ba benn moment <clears throat> jóge ci élection présidentielle opposition boo doon opposé le régime ba nga bokkoon gagné nga ñëw en retour élection législative yi nga ni ànd nga ñoom. c'est-à-dire yaa ngi leen di soutenir. ñoom ngay votel te yow en même temps ñu ngi lay topp tere laa tukki c'est paradoxal peut-être moom jàpp na ni tere tukki bi du loo xam ne c'est politique et man jàpp naa ni sax c'est pas politique. dañ la dénkoon moom démentir na info boobu de. moom démentir na. wax na. ab journal la ko bind. journal la ko bind mais bon démentir na ko. mais Mame Boye ah, Diao est-ce que nekkul aussi quoi qu'on puisse moom yàgg na di feddali kóllëre ci digganteem ak Ousmane Sonko euh, bien vrai que ni euh, avant muy quitté euh, ci fu mu nekkoon muy muy APR saa su nekk voilà ay kaddu yu rafet kaddu yu seede la daan yëkkati jagleel ko Ousmane Sonko. bu mu ñëwaatee ci context bi. Mm-hmm. reddition des comptes est-ce que du looloo tax mu dem ne day soutenir Pastef. Mm-hmm. ñoom lay voté bu ñu ñaati ci contexte bi dañuy donc permettre ñu def différence entre gestion lañ ko dénkoon ak reddition de ak ak politique wala boog ak relation mag nit ki. Mhm. la dénk la askan la ñoo la dénk lii sa diggante kii la taman li ma jàpp même bu day bokk na ci. wala bokkul ci ñi ñi teree tukki pour man war nañ koo déglu ndax lañ ko dénku ci li ma jàpp ci li ma jàpp. Mm-hmm. ñoom nag ñoo bokkoon seen la ñuy liggéey peut seen koor boobu am na ñoom lu ñuy doxalee am na lu ñuy xamalante am na lu ñuy xam peut yooyu mooy tax. ñu ne ah day am seen sympathie seen diggante. Mhm. du ñu clashanteeg ñoom seen. mais bu ñu jëlee loolu metre ko de côté déglu bi yoon la. d'accord parce que yow da ngaa nekk comptable gestion jàmbur am ay at yoo xam ne tong ko mais nag déglu bi ci yan base. Mhm. xam nga mënoo ñëw ne nit ki dama lay déglu nii te peut-être rapport épinglé wu ko wala déggoo ko ci ay scandale même bu la rapport épinglé wul mën nañ la dégg ci ay scandale ñu ne ak ah, kii kat ci lii lañ ko dégg ay wàllu corruption ak ñoom seen loolu dafa arrivé bërki dé moo njaay ki ñu fa doon waxtaanee mu jiite woon LONASE donc man jàpp naa ni soutien bi peut-être bu doon gën a neex moo ñu defoon ko auparavant mais liñ naan ko ci mbartal puus mu dem puusul mu dem hmm. man dama jàpp ni allure bii nga xam ni Pastef mu ngi koy doxee de 2014 à nos jours ba yegg si fii mu yegg si soutien dem ñàkk soutien dem. d'accord parce que dangay gis koo xam ne day nekk ci ab parti ne man parti bi laay milité fii la am carte membre mais man ñee laay voteel parce que ca ka may bu ma jëlee man ak ñi ma xam ak ñi xam ñu matuñu cinquante. Mhm. balaa nag cinquante yooyu noonu di dem nekk vote poussière man je préfère mu nekk vote utile. donc moo tax ma ni jàppale bi daal mënoon na gën a pertinent ci sama wax dëgg yàlla sama xalaatu bopp la nag. waroon na gën a mën a pertinent bu ñu ko defoon avant. Mhm. wala bu doon amoon na benn taxawaay boo xam ne amoon na ko avant. que que léegi nii. voilà Ami euh, comme ni ko journal bi laajee di xam ne ni euh, ndax daw reddition des comptes moo waral soutien bi ci Pastef ndax régime bi fi nekk. nekk na régime boo xamante da ngay daw làqatu ngir li nga xamante ni war nañu ko amal ci yow maanaam càmbar mhm. sëñ bi rek yeneen yu ni mel ñu bañ ko précision mhm. ñuy dem l'alliance pour la transparence des élections mooy atel waxuñ que ni coalition la parce que ah. am na ku ko bind léegi il faut que également bu ñu bu ñu bu ñu waxee ñuy comprendre xam nañ du coalition mais cela veut kenn ku nekk ci ñoom ñii ñëpp bokk nga ci coalition pour jëmal li nga xam te ne élection législative yi raison pour laquelle ñu ne peut-être ci ñoom xam nañ dugg nañ ci lu ñu xamul moo tax ñuy jéem a créer benn bi boo xam te a aussi waaw waaw vraiment ñu ñu ñuy faral di di di di di rafetal di rafetal di rafetal kàddu yi aussi ah. voilà xam nga Mame Boye hmm, Diao Mame Boye Diao ah. quoi qu'on puisse dire quoi qu'on puisse dañoo bet kay ñu bet jaruñuy seetaan sax <laughs> loolu boobu moom jarul kii sax mais juste une précision parce que lan moo tax lu tax ma lu tax lu tax lu tax ma doon tax may éclaircir peut-être ku ku déggul mën na ko gis foog na ñun dañoo wax loolu man côté boobu sax laa xam mais bu dee moo ba bu mu wax moom man ça ne me dérange absolument pas voilà léegi bu fekkee ne dañu ñëw ci Mame jaawoo Diao xam nga wax nga ko léegi muy lu am solo maam Dia maam Boy Diaw quoi qu'on puisse nekk na koo xamante ne bokkoon na ci ñu gën a am retenue ci nga xamante ne ñoo àndoon ak Macky Sall parce que wax ji lu mu bëri bëri woon wax ji lu mu métti métti woon soo gis ñu invité ko mu wax benn discours boo xamante ne déplacé na jëmbale ko ci ñi nga xamante ne ñoo fi nekkoon opposant te nekk nguur jamono ci parce que nag quoi qu'on puisse dire ñoom ñoo bokkoon fi ñu doon liggéey donc peut-être am na benn. Euh, am na benn peut-être sympathie boo xamante ne amoon na seen diggante wala benn laamiso boo xamante ne amoon na seen diggante et loolu moom daf ko yàgg assumé même bu fekkente ne ñoom bokkuñu woon fi ñu nekk parce que moom mi ngi woon APR ñee ñu ngi woon ci opposition bi maanaam Pastef donc mbir yooyu bu amee mën naa ne c'est des rares personnes yoo xamante ne moom moo ci amoon retenu parce que da nga doon gis ñu àndoon ak Macky Sall yëpp daanaka arrogance bu mot sëkk lañ doon amale jëmale ko ci ñi nga xamante ne ñoo fi nekkoon opposition soit kuñ ci invité di nga saaga Sonko wala nga xas Sonko wala nga xas ñi nga xamante ne ñooy ànd ak Sonko mais Mame Boye Diao dafa nekk koo xamante ne pour man. Pastef moom quoi qu'on puisse dire wala bu fekkente ne dëgg rek neex yàlla moom boo ci jàppee mu dem boo ci jàppul mu dem mais xam nga ci mbirum législative la ñu la ñu ñu jëm jaara te législative dafa nekk mbir boo xam ne dafa ama am solo te ku nekk maire wala ku nekk li nga xam te ne moo di conseil départemental mën nga jàppale bu baax a baax ñi nga xam te ne ñoo soxla mbirum euh, réduction des comptes boobu dama koy faral euh, di wax moo mooy mbirum euh, élection yi nga xam ne mooy élection législative yi parce que Mame ne Kolda am na fa benn base politique bu am am solo boo xamante ne loo ko lu mu ñàkk ñàkk mbooloo tey ji mën na la assurer fa nga xamante ne moo di Kolda et pour man mën na apporter benn surplus ñi nga xamante ne ñoo di parti Pastef xam nga dañ naan mbirum nawetaan mbirum koñ la waaye tam mbirum mairie mbirum koñ la parce que maire bi par exemple moom boo jegee sa askan amaan na la nga bëgg ci ñoom mën ngeen ko am. Euh, donc euh, pour man apport boobu mën na ko amal ñi nga xamante ne moo di parti bi di Pastef mais logique pour logique man Mame Boye Diao évident mënul woon a dellu li nga xamante ne moo di APR parce mooy di Amadou Ba moom il a été catégorique ne du ànd ak Amadou Ba damay dem ak sama bopp donc logique pour logique mënul delluwaat ci li nga xamante ne euh, di APR moo tax pour man ñëw ci fi nga xamante ne moo di Euh, parti au pouvoir intérêt la moom parce que foofu rek la mën a dem mbirum nag reddition des comptes pour man ñëw fi nga xamante ne moo di gouvernement bi pour daw reddition de comptes man loolu gëw ma ko parce que transparence bi nga xamante ne xas na ba dugg ci reddition des comptes bi mais détermination bi nga xamante ne ñoom nguur gi wala nañ ko ci reddition de comptes bi dalee leer na képp koo xamante ne taq nga ci mbir mi nga yaa xam nga ñëw ci moom yaa xam ñëw ci moom buñ la naree dañ la woo àllaa kulli xaal moom pour man. amul sax luñ ci luñ ci lu ci ñaari xel. Mhm. jubbanti exactement. Pastef moom nekk na wala sax ñu ne ci régime bi nekk nañ ay di ci nga xamante ni sagam ñu nekk ci ñoom la ñuy lijjanti seen i. parce que parce que déjà da gis Ousmane Sonko ne ñun du ñu ànd ak képp koo xamante ne nii nee nga yow lekk nga ñaar dërëm boo xamante ne mm-hmm. askan wi moom kon donc kooku même ñi nga xamante ne ñoo ànd ak moom sax tey jii ku ci defoon détournement dinañ la bedd ci seeni biir parce que ñoom cautionné wuñ loolu. voilà ah ah nañ nañ ci rek maam booy. ah moom de nee na nee na li tax mu def ko nee na. parce que volonté bi nga xamante ne askanu Sénégal amoon nañ ko moom lay respecté parce que ñoom dañu voté au premier ah, ne moo moo di moo di premier tour Bassirou Diomaye Diakhar Faye léegi moom tamit nee na pourquoi pas mu hmm. respecté volonté boobu mën na ñu nga xamante ne euh, mooy ñi fi jiite ñu am majorité ci assemblée nationale moom ah, logique boobu la waxee bu dee bu dee bu dee bu dee topp nga volonté boobu moom noonu noonu rek voilà nga mën a def quoi